verdict bi nga xam ne moo tukkee ci cour d'appel bu Dakar dafa gën a rek euh, méttital ki nga xam ne mooy njiitu euh, Pastef Ousmane Sonko ba tax na loolee daal dafa daal di rek diir lu tollook juróom benn weeru kaso yoo xam ne du ko tëdd ak alamaan boo xam ne daal dafa toll ci ñaar téeméeri euh, million ci suñu koppar ak tamit fexe daal ba njàpp ne moom kat bu ñu defoon nànk narta bokk ci élection tabu njiitu réewum 2024 waaye laata loolu rek ñu ci yegg gisee ne kat bu doon ab ngelaw la wala sax pënd ba moom daanaka pënd ba wëreegul waaye ñu gis daal dafa lëndëm këruus ndax ëllëg gi nag moom kenn xamul fan la Walfadjri di mujj ak gëtëm ndax rapport bi nga xam ne moo lëkkale pouvoir bi ak kuje gi jàpp ne tamit dafa naal daal am po ci wàllum politique ndax daf gis na ne bu ñu deful ndànk rek dëkkmal ci wàllum présidentiel bi nag moom loolee na lool ñu bëri daal di euh, samp laaj xam ne kat moo delluwaat ci décision bi nga xam ne metti a jàpp mi nga xam ne teg na Ousmane Sonko metti na te bu ñu deful ndànk rek moo met du bokk waaye jàppee daal daanaka recours bi nga xam ne dugal na ko ñooñoo ñor sam cëgalugu guy ya waaye njàppe daal jël ñi nga xam ne moo leen yoon ak ñi nga xam ne mooy njiitu réew mi dafa mel ni kat seen loxo génn ca waaye tamit da ciy bokkam déet bi nga xam ne mooy Ousmane Sonko ci présidentielle 2024 ci lëkkaloo nga xam ne moo delluwaat ci rang kujje gi awa tamit ci candidat bi nga xam ne mi Macky ak ci lëkkaloo dox ci diggante Sonko ndax gisee ne kat daanaka ñoom seen doxalin jamono ji dafa mel ni dafa sedd lool waaye tamit tasku yeewi askan wi a tas loolee day tax rek waa Pastef jàpp ne am na cadre unitaire bi nga xam ne nar nañ koo teg loolee daal di yaa li wér te wóor daal mooy gis nañ ne ngelaw gi wala pënd bii nga xam ne kat moo tikkee ci Sénégal jaarale ko ci wàllum yoon ak ci wàllum politique acteurs nga xam ne ñoo ko daal di seex ñoom ku ci nekk daal war nga def nànk rek ku ci nekk tamit dëgmal daal di xippi say gët war a xam fu baax a baax fa ngay taxaw ndax gis nañ ne ay ndëgg sa rëxaleñ xaar ci jamonoy 2023 bi de waaye laata loolu rek recomposition ci ñii ci ay ndaw ñii ci ay màgget delluwaat ci paysage politique bii waaye lees mën a jàpp daal lay nar a xew nar na bétti ñëpp